yéen ànd ak moom dafa dura ngoog yaa ngi may lamb lamb ji jeex na trompé Mor Fadam Sénégal salaamaaleykum mbokku internetu Lutte TV ah mbokku internetu Dakar Midi mbokku internetu Wassare ak fépp waaye di nekk rek tey di ñu seetaan ñoo ngi leen di bëgg di leen ziar ngi toog ak champion ah bu mag ndaanaan ñi ko Ndiaga Dolé ñi naan ko Zador ah Zador doomu réew mi champion maa ngi lay bëgg waaw maa lay fay bu baax a baax Boucar waaw di la rëbëgee di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw fii mm-hmm. waaw di wax lii mooy aar na quoi mm-hmm. xam nga moom xewal leen kenn bësam mm-hmm. yéen moom fa xewoo am rek da ngeen di ñëw carrément anticiper affaire ba mu jeex tàq delloo mbër yëpp seen cër yàlla amuñ seen fay kontaan nañ si ñëw bi ngeen fi ñëw tey nga bëree bëre lu rëy euh, yàlla may na ndam avant dara ginnaaw bi ñu la rek di la encouragé waat euh, lan mooy sa premier waaw sama premier moom mooy di sant yàlla rek di julli seenant bi di sant samay ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Aliou Maana Ndiaye di sant njabootu Cheikh na Cheikh Saad yëpp ñëpp yàgg fi rawatina waa kër Cheikh Max di sant waa kër Cheikh bu Mouhamed waa Ndiassane sant bu baax a baax xam nga ñooñu amoo seen fay ndax ñooñu ñooy samay wasila foofooy samay wéeruwaay moom ma mënti am rek ginnaaw yàlla ñooñu la ndax tey foofu laa jokk cent pour cent deux cent pour cent foofu la bokk waa di sant tamit xaarim jaañ bu baax bu baax borom Pikine référence si kër gi di suñu xarit di suñu mag di ñu jàppale di ñu tatagal da nga ñëw nag si waajtaayu combat bi naka nga waajalee combat bi waaw combat bi gis nga bu ñu taxawee daanaka diiran bi yàggul un mois la mais fekkoon nañu ñu nekk si àll bi di compétir ndax man maa toog xam ne entraîné di am doole di toog amul sens. moo tax saa ma entraîné su ma sentiree rek chaque weekend ma dugg si àll bi di compétir ndax mbër mu ndaw waroo toog dépassé nañ ay mbër yu ndaw sax mais problème bi mooy ginnaaw yoon ndaw du gaaw. tey suñ borom bu neexoon tey suñ yoon dépassé na fii ndax ku bëri quinze combats ah am si de défaites kon instant a sa palmarès kenn du ko natabale te samay morom yi nga xamante ne ñoo fi teewoon yëpp yàlla def na dama leen daan. lu waral sa combat di jafe. <coughs> waaw sama combat di jafe xëy na loolu si mbëri la. Mm-hmm. moo tax ñaari yaar dama koy encouragé bu baax baax ñaari yaar. Mm-hmm. waaw xam nga rek adversaire la ko ñu jox kër la ku ñu respecté la. waaw combat bi nag moo laajoon lii. ndax jamono jii. Mm-hmm. toogaay bu yàgg. laa mënatul supporter si làmb. da ngay nekk mbër. wala mu bàyyi dem xoole leneen. walaay waaye. Eh! instant bii nii. taxawatuma pour expliquer wala may am benn demi mesure géejawaay bi ñun dañ ci bokk dañu war a téye géejawaay suñu loxo am nañ gëm-gëm bi am nañ vision bi amuñ dara lu ñuy xalaat nag ndax am nañ ay grand yu baax yu nekk suñu ginnaaw guddeeg bëccëg. mais 100 pour cent géejawaay bi gisuñu leen tey sa combat bi. non 100 pour cent géejawaay bi tey combat yi dafa bari tey mbëru géejawaay fu ne lañ doon bëree am lii mu ngi doon bëree fee Cheikh Super jamono mu ngi doon bëree fee démb dafa tas. dafa tas tey géejawaay dafa tas. mais ñoom Alioune Seye 2 ñëw na. gars yi ñëw nañ. géejawaay gars yi génn nañ en masse. yaa may dégg xëy na Balla Gaye li tax ñëwul xëy na ndigam li moom moo ko jàpp. ndax ba mu bëree ba tey génnul këram daa feebar. mais yooyu garawul ndax moom échange defet la jógee dañ koy encouragé. di ko ñaanal yàlla si kanamam li jëm si kanamam mu rafet. ndax ñun suñ bés dañ taloon. njaga bisam la taloon. bisam la doon liggéey. liggéey na li mu war a liggéey yàlla may na ko ndam mu ciy sant yàlla bu baax a baax. bëri bi euh, maanaam bëri bu gaa bi yaa ko yaa ko taamu woon noonu wala nu mu demee. waaw mais ba kii nee naa la man maay diriger ndax ñaari yaar gëj na si làmb ji man maa ko mujj si làmb maa mujjee daan Ibou Ndafa si kawam moom ngel jël moo ko mujjee daan toog na trois ans quatre ans xaw ma bëriwul kon suñ combat taxawee moom balaa muy ñëw naan day am repère rek lii dama ko fi jëlee lu leer laa ko woon signature bi nee jamono ji dama bàyyi di bëre mbër mbër bi nekk si jàmm. tant que ñu ngi bëri si fitna ngay nekk ba làmb ja di jeex loolu amul sax lu ñuy dellu ginnaaw. muy hmm. adversaire yi ñëw ak muy adversaire yi wala laa te jamono ji nag. samay morom dañ ñëw ñu bëre samay morom day ñëw. non Franc du rees. Franc moo la gën a xam ne lu lokk du rees. Hmm. du ma wër fenn di ko laaj di ko may buzz. Hmm. ndax tamit làmb moo demee noonu. ku la war a daan day lay daan rek mënoo si dara. mais bu ñu waree dajawaat. dañuy daje loolu du kaa mais fi mu toll ay Baye Mandione ñu ngi fi amuñ combat. waaw Tapha sa waay man ci catégorie googu laa bokk. dañuy waxtaan rek man Baye Mandione lu mu ci def loolu dawul sama yaram. Baye Mandione ay Baye Mandione Tapha Tine dama la wax ne man yow mu Baye Mandione de samay adversaire laay wax Baye joon laa la wax fii Tapha Tine bombardier mii man ñoo ñoo bàyyi si làmb ji. Tapha Tine moom laaj nga ko sama. wax rek xam nga luy problème bi. dama laa ni Bombardier gis nga bi mu bëreeg Balla taxawee si géew gi fi ma toog laa toog billaahi wallaahi wa taala sama yaram di xasan mu leer ma ni keroog sama mbër daa feebar mais man suñu ma ngëmboon tegal ma leneen la ñuy wax di Bombardier billaahi wallaahi wa taala barke yonent yàlla bi non man sama mbër xam naa daa feebar waay dégloo ma de ñun ñoo nekkoon ak moom regroupement yaa may dégg xay na moom dafa nekk bañkat ak bañ di yàq làmb moo tax lu mel nii di ko dal billaahi wallaahi wa taala Balla Gaye li ko dal bu nekkoon beneen mbër la xalaatu ko bëre waale barki rasulullahi ak tuus bi mu tuus yëpp billaahi wallaahi wa taala Balla Gaye keroog koo xool xam ni san pour cent nekkul nit ñi ngi toog naan entraîné wul entraîné dem na France yàq xaalisam foofu mais dafa entrée ne def na li mu war a def foofu de mais instant yi ba mu ñëwee blessure ke mënu dara ndigg mooy doomu aadama loolu dara instant nag xale la jeune la mooy suñu grand mooy suñu idole ci géejawaay ndax tànk yi muy teg ñun moom la ñuy xool tey di gën a étouffer suñu bopp di gën a am jëm suñu bopp ak mbër géejawaay yi nga xamante ne ñoo fi nekk ku mel ne guy gi suñu mag la suñu lépp la di ko ñaanal combat mbaam ñoom yàlla na ko yàlla may ndam la de guerre suñu grand lañ ak mbëru waa yi nga xamante ne ñoo fi nekk am combat Cheikh Super Diamono suñu rakk la bëri na démb daan ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko ndam li jik tey nag tey la moo tax sax wax ji xawul neex nii caadu njaga saar sama rakk la moo bëre sànq ñàkk mais espoir moo demee noonu bul découragé bul xalaat dara bu suwaa takkaatal say dàll nga dugg si géej gi xam ne fii lu la mayul du la ko xañ quoi xale nga nag tolloogoo fooy amee bay ñàkk suñ borom bu la tegalee lii rek xëy na bànneex mu ngi si ñëw lii dara bul découragé suñu fiis nga suñu raq nga. laajal nga war a yàgg dara. say say adversaire. samay adversaire laa wax instant bii nii. waaw bàyyi moo taxaw sama kanam. na ñëw direct. Aziz Ndiaye. yaa ma tuddee Zador doomu réew mi. bul xalaat. bàyyi ma ñoon na ñëw. nga teg si Tapha Tine ma tëjee ko saison bi amul leneen. nekkuma fi di xalaat dégguloo ma de nekkuma fi di xalaat nekkuma fi di jël ay mbër yoo xamante ne da ngay laaj ñu naan yaa ko mën ak ay ñoom zozok ay ñoom ñëpp ku ñëw baax na mais da ngay laaj ngeen taxaw ñu xamante ne kii yaa ko wala yaa man dama bëgg ay combat yoo ne boo sumee ko dañ naan njaga kii da koy rey comme ñaari gisoo ko tey bu sumee ko bu taxawee sama supporter dañ may yërëm man yooyu laay bëgg ni instant bii doole dañ koy liggéey ñun ni doole la ñu yaakaar avant tout ndax dañuy liggéey dañoo gëm suñu bopp dañoo gëm entraînement. billaay wallaay wa taala wër na yàlla. mais bu bu ñu jógee foofu noonu rek tey li ngay li ngay tàggatoo ginnaaw bi nga xamante ne xam naa ne instant nga te gars yëpp ñu ngi nii tey maanaam wër la lii la tey euh, ma bëgg rek nga ñëwaat tuuti rek si ñi nga xamante ne rek mooy maanaam tey ni làmb di joxee tey parce que gis na ne mbër xam nga da ñi nga bëgg a bëri duñ bëgg bëri ak yow waaw instant moom làmb moom ku xam làmb jamono ji xam ni violence li muy yàq si làmb moo ëpp lim ñuy defaral xëy na nag violence moom mbër buy bëre du ko sàkku mais tamit violence nag moom fu na lay jógee rek ndax affaire de jeunesse moo demee noonu ñii dañuy ñëw pour defar ñii ñëw pour yàq te kiy defar nag pour yàq ay jeunes fu ñu dajee fu seen yaram tàngee rek pour seen kiy jug day yombu mais nag di waxaat ñëpp ñu gëm sportif ñu gëm sport te xam ne sport la ñaari mbëru Sénégal bu ñuy bëree ku daan Sénégal mooy gagné ndam li mënuñu wax ba mu génn senegal kon nag gars nañ nañ bàyyiwaat seen xel te bàyyi violence bi violence amul benn njariñ ñun suñu làmb ji lañ am si lañ bëgg tey jii li nga xamante ne raw nañu suñu àdduna ñu dab ko suñu làmb ji képp koo xamante ne war nañ la dimbali suñu làmb ji billaay wallaay wa taala ñaan nañ yàlla yëgale suñu kenn ku si li nga war a am si làmb ji mu jóge si ñun mu ñëw si yow. santal ñi ngay sant. waaw di santaat yàlla. waa di ñaanal tamit suñu papa Ndiaga Sarr. kooku ñun mooy suñu idole moom moo ñu may fit. yàlla jëlee na ko fi te yàggul. ñu génn benn sorte boo xamante ne mu wéetal ñu torop waaw di ko ñaanal yàlla fi mu tëdd. yàlla na ko gënal fi mu jógee hmm. di ko ñaanal sama papa bi ma jur di ko ñaanal sama goro papa baay Cheikh di leen ñaanal yàlla xaare leen àjjana yu kawe ya hmm. billaay wallaay wa taalaay ñoom ñëpp kenn ku ne dem naa say armeer hmm. ñaanal la tàggu la wax sama mébét si yow te yàlla baax na li ci kanam du raw bët waaw di sant yàlla nag baax baax di sant sama grand yi ma àndal ndax ma toogee tey découragé wu ma bàyyi ma daa am ay grand yoo xam ne ñooy nekk si ginnaaw di ma jox seen xaalis te di wax dëgg ma taal sama loxo de ñii yàlla moo boole ak ñoom te yàlla rek tax ñu jàpp ma yàlla rek tax buñ gisee may def naka su dul noonu rak ñu woo ma duñ ma may dara kon boo amee grand yi mel noonu dañ leen di déggal te xam ne ñooñu sa avantage dañ la bëggal ndax ëllëg tey jii njaga bu nekkee champion dëgg la mébét na ko de mais bu amul ak ay grand yoo xamante ne ñoo nekk si ginnaawam di def li nga xamante ne moo war si moom pour nga xamante ne fi muy teg tànk pour ma teg sama tànk si kàmb day yomb di sant nag sama lion bi ajaris bi jaari mbay moom sama féetale sama lépp la moom moom mënu wax sax si moom moom xam na man xam naa di ko ñaanal yàlla mu yeggaleeg sagoom rek waaw moom na yeegale moom moom maam moom ñu on est ensemble. Mm-hmm. waaw di sant tamit président la jóg mm-hmm. jàpp na si baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw di ko sant di ko gërëm amuñ fayam. champs bu njaay ñu ngi koy sant suñu grand la. suñu xarit la. xeebaluñu xam ne ñoo bokk di géejawaay jàppale nañu si côté bi yëpp. Adam Maram Kundul. jàpp na si combat bi ndax xam na ni tey jii. boo ñëwee njaaram bi maam laay fii suuf si weex. xam ni tey suuf si weex ñoo le suuf si moo kii ñooñ ñëpp tey jii ñoom ñoo fi dëkk tey jàpp nañ ci combat bi kenn ku si ne kii bambakan ñoom ñëpp jàpp nañ ci combat bi monsieur le maire Alioune Sall nag ñu ngi koy sant di ko gërëm Ahmed Aïdara ñu ngi koy sant ndax ñun élément géejawaay lañ ñun ay monument yu war a taxaw fii ëllëg nekk géejawaay ñun buñ gisee loo xamante ne tey ñu koy def siñ commune bii ñun ñoo koy xeexal suñu bopp ndax ñun ay homme de parole lañ nekkuñ ay koo xamante ne dañuy toog fii deewal booy ñu sànni xeer wala yaa quelque chose ndax yàlla dimbal ñu am nañ ay mag yoo xamante ne ñu ngi ñuy teete si politique bi di wax ak ñun loo xamante ne mën na dugg suñuy xel di sant suñu waa école nag bu baax a baax da Père Ndiaga Sarr dem na bàyyi na ak El Hadj suñu coach mais yàqu si dara kenn kus ne tey jii mu ngi lay teg sa code ndax moom ndam rek la bëgg léeg-léeg booy ne daa compliqué wala nangam sangam. mais moom victoire rek la bëgg lim lay wax nii lii ndam rek la bëgg sama waa koñ nag su ma limee damay juum sama waa koñ man aw ma seen fay sama waa koñ sama soxna yi nga xamante ne ñoo newoon si waañ bi tey di togg ceeb ba mu ne ak samay mag waa Fatick sama doom baay dañoo bàyyi li def lépp ñëw waa Gosaas seen xel fi waa Kër Njaayloo waa Diouroup kenn desul Cheikh Daouda Ndour nag kooku sama xarit la kooku moom maa moom du fi quoi sama séddale ma si def kon mais yàlla laa koy bàyyeel moom xam na man xam naa di sant nag Samba Senghor bàcc bàcc logaan sama patron la de mécanicien laa def ñëw suñ suñu garage ñaata yoon garage am laay ñëw moteur may modifier damay taxaw defal nii defal nii moo may teg si kon kii aw ma fayam mm-hmm. su ma demee garage lu ma soxla mm-hmm. bu dee xaalis bu dee kii mu ne ma kaay géré ko te kenn du xam mm-hmm. di sant waa ancien piste bu baax a baax a baax ndax sama waa garage kenn desul ku si mel ni Mandiaye Pape Abdou ñooñu samay xaritu démb lañ mafia bi ñoom Sita Talla mafia fobeere bi yëpp yaa ma gën a xam ñoom ñëpp a ngi si biir di sant nag garage may sa kura garage gas ñu ne aw ma seen fay Ousseynou Lamine samay mag Baba Cheikh Diop. gaa yëpp aw ma fayam. defal liste ba mardi. da nga may déglu ma la instant bii nii. liste ba mardi rek sama waay nga waaw di nga ñëw. Bokar waaw léegi na. Moussa Mboub sama frère la. waaw combat bi taxawu na ma si fépp. mère Rokhaya Diop. taxawu na ma. Ah. fépp foo xamante ne raq dafay taxawoo magam. nekk na sama ginnaaw nekk na sama kanam. kon kooku amuñu fayam ndax koñ bi tey lii rek lii ay ñoom ngalaa ibu ñoom ñëpp tey suñuy fils lañu tey ñoom xam ñu tey jii njaga mooy seen mag ñu jël njaga def ko mag. Ousmane Wari man Ousmane borom juróom gis naa ko fi de. def ci code sama Ousmane la. suñu Ousmane la. am si àll bi moom mooy woo fu lamb am. damay mere sax su ñëwul. mbër ñëwal ñëwuñ dem jël lamb ji ñëwuñ dem jël ji ma toog ba si yàgg Ousmane. damaa jàpp Ousmane hmm. Ousmane ne ma waay dangaa soof nangam sangam amul loolu kañ dem nga jël làmb ji parce hmm. que yonente yàlla bi suma may bëri du am hmm. kon kii aw ma fayam seen waa kër nag jurub aw ma seen fay waa ko ñum bàcc jurub waa jurub yëpp daal billaay wallaay wa taala aw ma seen fay waa gis nga instant bi nag sama mafia corniche bi ma corniche mafia sama baay faal Macky aw ma fayam gis naa ko li mu si jàppee di sant nag sama benn jeune frère boo xamante ne sama benn jeune frère billaay wallaay wa taalaay jàpp ma ngir yóbbu ma si li mu nekk hmm. Mourtala Seck billaahi aw ma sa fay ndax Mourtala dañuy toog di waxtaan waxtaanu àdduna damay wax ay wax yoo xamante ne bu la neexoon mënoon na bañ a fekk te mosoo ma ne njaga kaa ñu ànd fi ma nekk wala nangam sangam ndax xam nga fi ma féete kon Mourtala man aw ma sa fay xëy wax ji yow laa waroon njëkkee sax di sant nag waa dëkk bi yëpp képp koo xamante ne tey toog na tey di ñaana njaga njaga mu ngi lay sant di la gërëm Zador doomu réew mi nag juddu na bi jeex na Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye yaa may dégg Baama Njoon day ñëw amul sax xalaat day ñëw di sant waa Mafia Corniche Mafia marché Mame jaara mag buur tiis bolle mampade ñoom Lamine Ndiaye bamba yeeya xaarim Abou Diallo sama fils memba waa mbayaar ga ñoom ñëpp a ngi si biir kenn desul kontaan naa di sant déglu ma lii wuyu ma bogar maa ngi sant koo xamante ne billaay wallaay wa taala mënu maa wax moom te xamala moo tax damaa jàpp tax billaahi wallaahi wa taala ñoo bokk sëriñ waaye maam moom ñoo bokk ndey ak baay muy bu naaw mii barke yonent yàlla bi kii mënu maa wax si moom moom xam na ni sax man mënu wax si moom mais kii dama koy bàyyi yàlla rek billaahi yàlla dem na dina yegale sago boo ateeg nag sama fils la ak waa kër ñoom imam Malick ñoom Boubacar sama gars waa Corniche place Siri Bara sama gars waa salle musculation ba ñoom ñëpp waa marché Mame Diarra ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp aw ma seen fay Babacar aw ma fayam Babacar borom Lac Rose Babacar soo ba tey barki yéen a ngi trois jours lañ demul kër Daaru Salaam lay jógee bàyyi li def lépp ndax man ba may def stade moo ma yóbbu awa maa yow dañuy continuer lii dara mais yow tamit di la sant di la gërëm yow kenn du yow. barki yéen a ngi kontaan naa damaa siqe ay